alhamdulilah ñu ñëw leen seen revue de presse lamb samedi tey jii la ca gën a fës ñu ñëw faram-fàcce bi li nga xam si nii moom la amateur yi war teew teewlu war ko mën a seetaan yi sa samedi tey jii suñu lamb bu ñu xamal ne ñaar ñu warita daanu ñooy daje tey jii ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn ndax ñoom ñaar ñëpp dañoo jógee ci defeet mu di ardo digganteem ak saba lamb joojee mooy am niki tey ba tey am na beneen làmb buy am ca stadium Iba Mar Diop diggante Iba mécanicien digganteem ak Petit Baye Fall suñu lamb wu ñu xamal ne lamb joojee kii di Serigne Modou Niang moo ko tëgg beneen lamba ngi nii tey jii lay am ci diwaanu Fatick Assane Ndiaye Baol production moo fa teg 5 millions drapeau Matar Ba suñu lamb bu ñu xamal ne waaye ca Ndangaan Samb samedi jeeg dimanche ji ki nga xam si ni mooy Yaxya Diop ni teg na fa 3 millions waaye suba tamit ci Ibou Mar Diop am na 3 millions ak Jax production suñu lamb mu ñu xamal ne ba tey suba ci dimanche ji diggante tonnerre ak ki nga xam si ni moo di Dame Sène combat bu mag a ngi noonu a am dër dër bi diggante ñu xamal ne combat spécial bi Mor Kankang moo koy bëre ak Alioune Seye Junior suñu lamb ñu xamal ba tey ni ki suba foofee nga xam si ni mooy diwaanu Tëngéej diggante Calcio lay doon ak ñi nga xam si ni moo di Abdou Gueye suñu làmb ñu xamal ne loolu mooy grand combat ba ginnaaw loolu beneen combat bu ñu jàpp date bi diggante Jackson digganteem ak ñaq jariñu suñu làmb ñu xamal ne Baba Jaw mi tëgg boobule combat la 25 décembre ci la jàpp boobule combat suñu làmb mu ngi ñëwaat ci ki nga xam si moo di Koña 2 ginnaaw combat bi ko daanee suñu làmb ñu xamal ne àndul ca décision ba daal di déposer recours CNG jël victoire ba joxaat ko ki nga xam moo di Boy Pire suñu laa mu ñu xamale Koña dugalaatoon na li nga xam se a dëggal victoire bi ci kaw ki nga xam se ni mooy Boy Pire Boy Pire lañ la suñu laa mu ñu xamale ki nga xam se ni mooy Tonnerre a bëri suba ndax dinañ gis 100 pour cent Pikine bi moo di suñu laa mu ñu xamal ne Fallou Ndiaye mu ngi jëm ci li nga xam se ni mooy sixième journée am ni naka naka noonu tamit ki nga moo di Serigne Modou Niang mu ngi jëm ci sixième journée am ni ki tey jii foofu ci Iba Mar Diop drapeau du jànjee ko suñu làmb ñu xamal xam si ni moo di Mbaye Kayre suñu làmb ñu ñëwaat ci lutte simple a am suba ci dimanche ji ko tëgg suñu làmb mu ñu xamal ne 1 million a teg suñu làmb mu ñu xamal ne Waly Diouf la 7 août day teg 1 million foofee nga xam si ni mooy diwaanu Adrien Senghor beneen làmb joo xam si ni day am ba tey ci wàllum lutte simple suñu làmb mu ñu xamal ne ki nga xam si ni mooy Saliou Diouf moom it le 8 août lundi lay tombeel waaye foofee ci diwaanu Adrien Senghor dafay teg mise bu toll ci 1 million ginnaaw loole ñu sant leen gërëm leen te di leen ñaanal weekendu jàmm